moom mu intervenir par rapport à la question parce que question bi aussi daf leen daf leen intéressé. waaw bon bien vrai que yéen. voilà ñun position ngeen. gars yi nee nañu ñun je pense que position bi leen may chance. <laughs> Euh, je pense que li ëpp solo. Mm. Euh, mooy que xalaat bi nga am ci Sénégal. donc xalaat bi bu jàllee nga xool yow lan mooy say moyens yi nga am pour mën ko développer. liggéey bi nga xam ne moom la PCS jëngu Tabax def depuis euh, tant d'années loolu je pense que euh, sénégalais yi ñoom gisal nañ ko seen bopp parce que aussi wax neex na mais je pense que ñun euh, euh stratégie bi ñu adopté depuis le début mooy nan la ñuy defee liggéey boo xam ne nii liggéeyu euh, SONES la maanaam liggéey boo xam ne nii tey nit ñi dañuy jékki-jékki rek gis peut-être résultat yi loolu je pense c'est toute une stratégie qui a été managée et pilotée donc loolu je pense c'est important tey boo jëlee sunu parti le PCS Jëngu Tabax ñun on est implanté dans les 46 régions euh, euh, départements du Sénégal donc commune boo dugg fexe nañ ba am fa au moins benn représentant maanaam koo xam ne nii sunu répondant la donc loolu di ñaar ñetteel bi aussi mooy fexe nañ ba parrainage comme euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo jiite réew mi actuellement dafa am ay pratiques yoo xam ne doon nañ ko def parce que doon nañ xool les délégués régionaux di leen jéem ak yooyu pour ñu jaay leen ay parrainage ak ah dem loolu am na bon je je vous le dis non gis je suis politique man j'assume ce que je dis donc su ma ko gisul woon su ko gisul woon du ko wax donc je parle à la télé en toute responsabilité donc loolu mooy benn ñun stratégie bi ñu euh, bi nga xam ne moom la ñu teg mooy dañoo njëkkee ci suñu ay nit maanaam képp koo xam ne nii militant nga ci biir parti bi da ngay fexe ba yow tàmbalee ci say nit ci sa famille su ma nee say nit say famille euh, say xarit say am di jàmm nga fexe ba en fait nga am seen parrainage loolu mooy benn buñ ci jógee ñu xool les leaders yi nga xam ne ay porteurs de voix lañu nga xam ne peut-être mën nañu apporter benn euh, benn benn benn valeur ajoutée loolu lañu liggéey bi ñu débuté aussi boobu xaaju ñu bay wax affaire euh, parrainage dootu loolu c'est important ñun commencé nañu saisir xanaa un avant donc pour vous dire que dañoo teel a tàmbali liggéey bi ndax bu leen fàtte ni 2019 euh, dañ ñu recalé woon donc on a tiré les leçons de de euh, du du passé pour mën a xam exactement buñ ci demaat lan mooy ndëgg sërëx yi nga xam ne moom la état teg pour ñun ñu mën ko contourner donc loolu c'est benn donc nag c'est important euh, nit boo toogee li ngay wax nga mën ko comprendre mais nga mën ko assumer e que ñun travail de terrain bi ñu def man en tant que responsable euh, national des jeunes chaque dimanche dañ doon réunion avec tous les quarante six coordonnateurs de jeunes di xool ñaata la ñu recensé ci seen département et man maa ko doon def noonu lañ ko doon defee ci au niveau de la coordination régionale noonu lañ ko doon defee au niveau du bureau politique donc pour vous dire quoi pour vous mhm. dire que mhm. liggéey bi ñu def ça a été minutieusement calculé avec des gens yoo xam ne ni tey dañ ci ànd ak dévouement ak engagement bu sincère ànd ci ak stratégie parce que le mot stratégie est important ci li may wax ndaxte tey politique bi ñu gis mooy ñoo xam ne pouvoir bu taxaw pour faagaagal opposition et tous les moyens son bon donc nit li ñu naan kuy yor du sëxët politique bi Boubacar Camara nekkatu ci gan maintenant li ñu wax ci wàllu peut-être li mu teel a jàll moo tax loolu commentaire il est souvent libre cest nit mën nga toog voilà sentir que ne yow tu te bon euh, wax li nga sentir donc loolu liberté la mais ñun ñu ci nekkoon hmm, di nelaw cinq heures du matin pendant au moins 6 mois des man ma seen leen gis leen ñuy dugg ci terrain bi di reyanteeg nit ñi sans moyen. di wut ay parrainage sans tambour ni trompette non liggéey liggéey bi ñu def liggéey bi ñu def moom laa mën a xam moom laa mën a wax donc pour vous dire quoi pour vous dire que liggéey bi ma fekk moom laa nekk di la expliquer nii pour vous dire que travail acharné moom la ñu def liggéey boo xam ne nii dañ ci ànd ak dévouement ànd ceeg engagement nekk ci ay saisies nekk ci wut des parrains sur et fiables loolu la ñu réussir am sunu stock bu doy pour wan la ni tey ki nga xam ne daf ko leer ne bu demee mooy jiitu kooku du am stock boo xam ne da koy leer na tey buñ ko newoon peut-être am na ay doublon yoo war a remplacer du ko mën a indi. donc pour vu dire que même bu ñu nekkoon parce que problème mu euh, tirage bi peut-être après nii suscité na débat mhm. mais lépp loo gis yàlla moo ko décidé. tey ñun bi ñuy dem wóoruñu ne woon ñun ñoo jiitu parce qu'il y avait 93 dossiers. donc tey nag bu ñu la tiiree nga jël paie loolu c'est pas de ta faute c'est une chance et que ñu assumer ko xam ne destin la après tout parce que la chance elle se tente d'accord elle se cherche d'accord donc loolu laa ci bëggoon wax et je pense que c'est important